c'est bon de mm-hmm. acca na ñoo ngi toog ki nga xam ne nii Oulita kenn dootu ko présenté si réew mi Oulita borom sa yu baax yi alors itam la diva mm-hmm. Oulita yan témoignage ngay def si sa xarit ñu bàyyi waaw ginnaaw bi ma jullee ci yenant bi sant samay ñaari waajur mm-hmm. maa ngi leen di nuyu bu baax yéen ñi ma fekk di nuyu tamit diva moom mi ma fekk muy sama mag nee la du sama xarit sama mag la sama conseiller la sama mag la nga koy déglu te la moo nekkoon say tànk fii ba tey ñëw mu tombe maanaam tombe tombe lañ tombe du question quelque chose bi nga xam ne dañ ko programmé nga ñëw seeti sa mag mm-hmm. waaw dama daf ma jaayoon meuble meuble yi rafet après ma gis ko ma gis ko mu publier yeneen mu nekk en promo mm-hmm. moo tax ma ñëw pour jëndal sama tamit ay meuble ndeysaan dégg lool maanaam da nga jëndoon ay meuble meuble jëndoon meuble yàggul mais ma gis mu dugal yeneen nekk en promo ma woo ko ne dama bëgg a jëndal sama papa ay meuble meublier rafet. meublier rafet lu muy jaay tamit <laughs> daa rafet. maanaam lu muy jaay yeneen xale yi jaay ñu ko. waaw réew mi moo fi teg tànk de ci meuble ak dégg ko ñaa seen relation la. suñu relation mooy relation jàmm ak relation salaam mooy ma gis lu baax ci moom mu nekk koo xam ne référence la. man sama référence la parce que déggoo ko ci détail déggoo ko ci lu ñàkk la déggoo ko ci dara te pourtant ñoom ñu fi nekk di wax lépp moom lu mu am peut-être sax ñoom amuñu ko te mu ngi toog nekk ci kawam di liggéey kon loolu day nekk sama référence daal nekk sama yaay nekk sama mag parce que nee naa la man nit sax duma gis ci palaasu nit fu ñu ma invité wul dew ma mais moom ñeme naa ko moom ñeme naa ko te xam naa ne moom nitu sutura la looloo tax ma ñeme ko su ma amee lépp lu may def dama koy woo wax ko ñu waxtaan si su ma nee defal nii ma defee ko parce que xam nga sama yaay nekku fii aw ma fi mag aw ma fi dara am naa nag ay famille mais peut-être ni ngay mën a waxee ak koo xam ne peut-être mën ngeen euh, koo xam ne euh, mat na la mag te nëbbu la daraam yow tamit doo ko nëbbu daraam da ngeen di waxtaan peut-être boo amee problème wala dara boo ko waxee dina la mën a gindi daal wala dara loolu moo tax ma gis ko tamit mu nekk royukaay nekk référence kenn dégg ko ci réew mi kenn dégg ci lu ñàkk fayda looloo tax ma ñeme ko. moom day direct de day direct bu baax sax day direct de waaye xam nga rek fu lëggee bëri rek. Mm. <laughs> ak personnalité bi moo tax looloo tax ma naw ko te man xam nga man moom peut-être loolu lañ ma yare mm. yarewuñ ma ñàkk fayda yarewuñ ma manquant du ma dem place kenn comme ni ma ko waxee doo ma gis palaasu kenn fuñ ma invité wu du fa dëgg sama tànk mm. ma moom dama koo ñeme. loolu nu ma gis ci moom nag moo tax ma ñeme ko. Mm. Euh, ku la xam xam la si jaayum savon. Mm. bokk nga yow tamit si ñi xam ne ñoo teg tànk si wàllu jaay. Mm. concurrence bi yow tamit nan lay demee sa koor sa xam naa samay saabu jógewu fi Côte d'Ivoire laa koy commandé mu ñëw. yaa comprendre ku nekk li ngay jaay rek ci nga mën a xam yow man sama jaay laa xam xaw ma jaay keneen te ci sant yàlla. dégg na am ñoo xam ne moom nee jàpp na ni ñoom ñoo dàq jaay savon seen savon moo gën a baax. waaw ku nekk sa marketing rek ngay def ñoom dama leen ci mere mais ku nekk sa marketing rek ngay def loolu kese la. mais mu mel mu ngi dox sa côté parce que. Mhm. ñoom jënd jëndaat meuble te beneen wàll laa dañuy dégg yenn saa ñu ne ñoom rek mhm. ah ñu ngi sant yàlla moom. Mhm. ñu ngi dox bu baax sax alhamdulilah. moom bokkul bokk bokkul si ñi nga xam ne dañuy voyage di ko wane. mais tamit moom moo ngi jaay. xale yi jaay. daa am ñuy voyage di ko wane. ah am na jaaykat sama xam ne bu ñuy voyage dañ koy wane lii ñëpp xam ne ñoo ngi dem. ah waaw loolu ku nekk ak sa sa vision de vie la rek mm-hmm. ku nekk ak sa vision de vie la yaa ngi comprendre ku mu neex voyage wane ko mais l'essentiel jaay bi mooy importance. Mm-hmm. nga am vue ak ñàkk vue yaa ngi voyage voyage wala l'essentiel ñaanal yàlla li ngay teg muy jar mm-hmm. te loolu la ñuy ñaan yàlla te yàlla mu ngi ci suturaal bu baax kon dañuy sant yàlla. Euh, waaw sa <laughs> man Diva Saliou laa xam ak li ma gis ci moom nee naa la man doo ma gis place su n'importe kii mm-hmm. nit dafa may woo sax ulita ñëwal live du ma ñeme parce que réew mi moo toj mm-hmm. mais moom mooy nit koo xam ne dafa am sutura mm-hmm. yaa ngi comprendre dafa am sutura te nit bu dëggoo boo ko xoolee danga koy xam nit buy jàppale ay nit boo ko xoolee danga koy xam damay gis muy def ay social yu bari mu koy def te loo xam ne peut-être wanewuñ sax lépp mais moom da koy def yaa ngi comprendre Diva bi sexalu ma dara mayuma dara yaa ngi comprendre mais damay ànd ak nit ànduma ak moom ngir alal ànduma ak moom ngir dara te man du sama àndandoo sama mag la sama yaay la su ma conseillé su ma gisee may def n'importe quoi su ma ne ulita bàyyi damay bàyyi yaa ngi comprendre kon dama ko bëgg te yàlla tax def ko référence parce que li ma gis ci moom la fulla bi ma gis ci moom ak nangoo liggéey kenn déggu ko ci dara à chaque fois bu ñu toogee damay wax sam papa wax yu bëri ci moom looloo tax sam papa bu ma ko waxee sam papa kilifa la mm-hmm. dafa ñëw ànd ak mm-hmm. ànd ànd ak man mm-hmm. pour ñu xool te xam na ni sam papa nekkuma ci lu ñàkk fayda sama papa du déplacé wu dem fenn lu tax mu ñemee ñëw fi parce que li ma ko wax ci moom la li ma gis ci moom su ko wonoon su ma wonoon leneen loo xam ne tricher la wala dara du fi ñemee teg sama tànk parce que dama ragal réew mi da ngay dem place kenn sax ñu ne ñëw na fi de lii ak lii nga génn fa ñëw na fi maa ko jox li maa ko jox li mais moom dafa am sutura nit ku am sutura boo ko gisee danga koy xam te man dama xam nit. Mm-hmm. loolu ñuy jaay savon. Mm-hmm. à la diva am si ñi nga xam ne nii yow tamit ay xaaj ngeen. ñuy mm-hmm. Kumba Ndiaye loo voté te moom nekkul dakaar mu ngi Kumba Ndiaye mu ngi Mbour. moom daal fii aw ma fekk ñoom sa relation de. non relation kenn si jaaykat savon nekkul Dakar mu ngi Mbour à moom. awma ceeg relation ak kenn. aloo boo déggee si si wàllu jaaykat yi des fois ñuy génte ay audio ay ay ay audio mhm. maanaam di werante seen biir mhm. loolu nun lay def yow. ah loolu de peut-être ñoom seen xel foofu la tollu rek ndax lu nekk rek euh, peut-être nit ki doo ko juger ci dara mhm. peut-être xelam foofu la tollu ak pression tamit dafa metti tuuma dafa metti wax dafa lay perturber ba tax yenn saa yi da ngay jaxasoo di def loo xam ne parce que man dal na ma yenn saay jaxasoo woon naa fi di def loo xam ne sax du sama jikko ma ñëpp dañuy xam ne kii melul nii kii mënul wax loolu ma xam ne loolu tamit dem naa ba réccu ko waruma ko woon def parce que melu ma noonu ma dem ba xoolaat xoolaat sama entourage waxtaanaat waxtaan ak sama xel ma dem ba bàyyi yooyu yëpp situation la rek bu jeexee jeex na. kon ñoom dañoo toll situation boobu. yéen a ngi situation situation la rek parce que ku nekk mën na fa toll tey yow mi toog tey mun nga fa toll kenn ñaanu ko yàlla situation bu amee bul juger nit ki. parce que pression bu mu koy fekkee tey mën na def loo xam ne après da koy rëccu situation bu amee rek dangay xam ne nit ki situation bi moo tax mu def lii mais du bon wala dara. Hmm. nekk ah reculer ah, dama dem ba ci biir ma reculer waa détail walla dara waa loolu moom dëgg la parce que moment boobu noonu euh, moment xuloo la moment xuloo bu ñëwee da ngay xuloo nga wax li wax sa dëgg wax li nekk ci yow bu jeexee nag nga focus ci leneen mais xam nga kenn du xuloo rek di jëmale suba da ngay focus jëma nekk déma lijjanti sa waa lijjanti sa avenir lijjant sa bopp nekk si leneen mais loolu rek nekku dañoo bon wala dara non lu ñu xuloo sax moo jël lan ah, waaw tuuma yooyu moo tax tey ma egsi fii metti woon na nag mais tuuma yooyu moo tax tey ma mën a toogal tey Diva Saliou amoon na nu ma doon mel ma nekk vaurien duma ma liggéey tuuma bëri na ci réew mi yaa ngi kon ku nekk lañuy tuuma mais tey ji bu tuuma bëree bu bu der yàqoo a aajo faju bu tuuma bëree tey fexel ba prouver dara ci réew mi nit ñi xam la xam nga foo ne Oulita ñëpp xam nañ ko yaa ngi comprendre après damaa pare ci loolu damaa focus damaa liggéey yaa ngi comprendre moo mën a tax tey ma toog a tey di Ba Saliou. parce li gën a tax ma euh, continuer sam papa ci la bokk sam papa ji toog ci la bokk parce que demoon naa ba ne damay bàyyi TikTok bi yaa ngi comprendre. Mm-hmm. ma tëdd sam ne ma jugal looy ragal jugal nga liggéey looy ragal jugal nga live. Mm-hmm. poussé ma sa diw yi sax jeex na demal nga defaraat diw affaire yooyu di ma poussé ci liggéey bi. kon tey jii su ma yeggee fii grace à moom la mun naa ne grace à moom parce que man xale laa tollooguma fu may amee sax bay ñàkk ñoom lu ñu am tey nii tollooguma fa mun naa ne peut-être su ma ko yàlla demee ba may peut-être yàlla moo ma ko may mais maa ngi doog a jug marqué naa sama empreinte nit ñi xam nañ ma loolu sant yàlla la maa ngi doog a jug am naa sama boutique amaana âge bi âge bi ma toll nii ñu bëri ñu ngi fa amuñu boutique kon sant yàlla la yaa ngi comprendre maa ngi liggéey maa ngi daan dool tàllalu ma kenn loxo mm-hmm. du kenn ku ma tàllal loxo mm-hmm. kenn jàppalewu ma ba may ubbi bitik ku du sam ah. papa kase mooy euh, comprendre waaw ñu lay euh, mm-hmm. euh, na ko sànq explication